rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu nuyoo bokk yi di jiital ci waxtaan wi ñaanal yi di Sëriñ Saliou Mbacké mu gën fee yàgg lool dolli ko ak wér li sàkku it ñaan googu ci mboolem murid yi ak fu ñu mën a nekk ci penku jant bi ak sowu bi tey jii nag ni ko sëriñ soo ko naa waxe dañu ñëw ngir waxtaane mbir mu am solo wala boog dañoo jóg ngir dëkk ci mbir mu am solo mbir moomu mooy lan mooy dëgg dëgg al iradatu sadiqa al iradatu sadiqa dañuy tekki mooy ci wolof taalibe bu dëggu lan mooy taalibe bu dëggu ma wax ni lu am solo ngoo loo xam ni mat naa gëstu muy itam bu am solo waaye nag yëmbut bari na kuy tuddoo ab murit parce que buñ ko laajee dëgg dëggi ak murit lu mën a taxaw wax la dara lu leer dana yàgg rek ci xoole kon loolu laaj na ab gëstu yombut waaye nag dana yomb ci ku ko yàlla jàpp ndalal kon ñuy ñaan yàlla mu defal ni ci ak jàpp ndal lu mën a doon nag dañuy bëgg gëstu ko ci alquran ba noppi ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu yebal Muaaz ibn Jabal ci Yaman ba mu waxee moom ba noppi dañu ko ana boo demee ci lu leen di àtte Muaaz ni ko bi kitaabillah téere yàlla bi yonent bi ni ko fa in lam tajid mu ni ko fa bi sunnati rasulihi mu ni ko fa in lam tajid mu ni ko fa bi ra'yi ana boo demee ci loolu di àtte mu ngi ko ci alquran laa leen di àtte mu ngi ko waaw li ngay àtte boo ko sëkkul ci alquran nag mu ngi ko ma àtte ko ci sunnat yonente bi yonente bi ne ko boo ko sëkkul ci sunnat nag mu ngi ko sama xalaat yonente bi dañuy alhamdulillahi alladi wafaqa rasula rasulihi sant naa yàlla mi defal tawfeex ndawul ndaw kon lu mu mën a doon rek buñ koy gëstu dañoo war a jëkk a indi alquran gëstu ko ca buñ ko gisul dem ci sunna gëstu ko ci buñ ko gisul nag door a gëstu jaww jaww ci li nees ci jaww ji mu mel ni baatu al irada am na ci alquran baatu as sadiq am na ci alquran waaye nag dafay ñaari point yooyu dañu jële fii benn dem jële ji fële benn composé leen nit na ci ñàkk déggam mën na ni baatu bu murit gisuma ko ci alquran mbaa gisuma ko ci sunna waaye fekk ne am na ci alquran aw dégg nag mooy am ak ñàkk a dégg wax nañu ne nit ñëw na ci yeneen ñëw na ci Sëriñ Tuubaa ni ko man de jàng naa alquran ba mu jeex waaye gisuma fu yàlla waxee ni dana tàbbal firaaw na sawara sëriñ bi ni ko ah kay xanaa yaa ko xamul mu ne ko fu mu ko wax mu ne ko yàlla waxul ci alquran ni wa anna al musrifina hum asxaabu naar mu ne ko anke mu ne ko ñana wa inna firawna la aalin fi l ardi wa innahu la min al musrifin ni ko kon yaa ko déggut waaye yàlla wax na kon li ma wax ni al irada am na ci alquran danañ jëkk a jàng yàlla di wax ci alquran ni minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al axira irada moom li muy tekki ci làkk wolof mooy bëgg ci bëgg dara rek yàlla wax ne am na ci yéen ñoo xam ni adduna rek dañu bëgg am ci ñoo xam ne ci yéen alaxira dañu bëgg mu ne ni kon bii mu jëkk a tudd muy ñi nga xam ne adduna leen tax a jóg ñun bu ñëwee al muridu sadiq bëgg adduna te muy dëgg ci moom taxunoo jóg ki mu tax a jóg mooy ki bëgg yàlla te bëggeelu googu di dëgg ci moom mbëggeelu googu nga xam ne bëgg na ko yàlla te muy dëgg ci moom danañ ci indi ñaari aaya yi alquran yoo xam ni benn bi yàlla dafay wax yonente bi ni ko bul dàq ñu ñii di tuddoo ay murit ñu ngi ci suratu ali imran surati suratu lanaam mu ni ko wala tatrudi alladina yadacuuna rabbahum bilgadaati wal asiyi yuriduna wajha mu ne ko bul dàq mukk ñi nga xam ni dañuy woo seen borom ci suba yeeg ngoon yi te bëgguñ lu dul jëmmam jëmmam nag buñ ko waxee mooy ngërëmam la ñuy sàkku loolu ñu def beneen aaya mu di ko ci digal mu muñ tey jaxasoo ñoom di toog ak ñoom ñu ñuy di tuyaa ay murit wax na ci suratul kahfi wasbir nafsaka maa alladina yad'uuna rabbahum bilgadaati wal ashiyi yuriduuna wajha yuriduuna wajha mooy ngërëmul yàlla rek moo leen tax di yëngatu waaye bëgguñu pañax tiitum àdduna muslim nett li ci ab saxiixam jële ci ibnu jële ci saad ibnu abi waqaas mu wax ni dañuy nekkoon ak yonente bi di juróom benn nit yéefar yi ni yonente bi fuqaraa yi ak seen kilimaay bi ak seen taqaay bi dañu leen di dàq ndax bu ñu jotaayoo ak ñoom dañu ñu yeb nee na booba maaj ibnu masaad la ak benn waaye bu bokk ci bani xusayl ak bilal ak ñeneen ñaari gaay ñoo xam ne fàtti naa nañu tudd te bi ñu waxee loolu dafa mel ni dafa toq ci xelam yonente bi mu xalaat leen a dàq moo tax aaya bi wàcc ni ko mukk boo ko xalaat mukk bu leen dàq dàq ñi nga xam ni dañuy sax ci jàkk ji suba ngoon di tudd yàlla di ko sabbaal di ko wéetal di ko ñaan te jubluwuñ ci dara lu dul ak ngërëmam kon ñi ñi nga xam ne dañoo sax ci di tudd yàlla di ko wéetal di ko sant di ko sabbaal di ko kabar ñooñu moo xam ay boroomi alal lañu wala ay way ñàkk lañ moo xam ay boroomi kàttan lañu wala ay way néew doole lañ ñun ci mën a doon rek ñooñu ñoom la ñu tuddee al muridoona saadixoona ñi yàlla wax yonente bi ni ko na nga téye sa bopp te ànd ak ñooñu te toog ànd ak ñoom te bu leen dàq mukk ci jotaay kon baatub iraada ñëw na foofu ci aaya boobu la ca def mooy as-sidq yàlla tudd na fukki nit ñoo xam ne da leen a dig ngërëm da leen a dig ak njëggal dig leen yool bu mag fukk ñooñu tudd na ca as-saadiqiina wa saadiqaat demal ca aaya ba tàmbalee inna al-muslimiina wal muslimaati dañ ca fekk wa saadiqiina wa saadiqaat ba mu demee ba ca mujj ga dañuy a'adda allahu lahum maghfiratan wa ajran aziman am benn aaya boo xam ni ma nga ca wax ne wa man yuti illaha wa rasula fa ulaika maa alladina anhama allahu alayhim min annabiina wassiddiqin washuhadaai wa saalihin assiddiqoona ni ko lenn ci mufassiroon yi tuddee mooy ñi gën ci ñi topp yonente am ñu ne siddiq dañ koo tëggee siixatu fiil lu mel ne sikkiir mooy ku bari lu muy dëggal am na ñu ne Aboubacar bi ñu koy tuddee siddiq mooy bi mu dëggalee yonente bi ci lépp lu mu wax suba googu nga xam ne yonte bi dafa xëy ni rañaanal ne jëlee nañ ko fi mu dem baytul maqdis jóge fa dem juróom ñaar bi asamaan ña amoon i nattable Aboubacar bañ ko ko waxee dañu waaye moo ko wax ñu ne ko waaw mun leen kon wax na dëgg am nañu ni ci loolu yi ci la siddiq ji sababu siddiq nag saadiq la ju dem ba sax ca dàkk ba mu doon aw meloom moo tax ñu di ko wooyee siddiq ci siddiq jooju nga xam ne ak dëggal rek lay tekki su la yonente di waxe ni nit du dañ di dëggal di nattale ak dëgg bañ bind ko fa yàlla mu doon fa siddiq nga xam ni nelaw ak dëggal moom lañuy moom lañ koy takkale am na ñu wax ci sababu li tax aaya ba bi wàcc ñu dafa am kenn ci lan saa yi ku ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak njàqare lool yonte bi ni ko ana lu tax nga jàq nii mu ne ko mbir mu toq ci sama xel de moom a tax a jàq yow yonte bi yonente bi ni ko loolu lan la mu ne ko damaa gis ne ñun dañuy xëy si fi yow di gont si di di la xool di tooral yow ëllëg buñ la yëkkatee nga ànd ak yonente yi duñ mën a agsi fi yow nee na bi yonte bi ne cal ginnaaw bi yàlla yebal jibril mu wàccee ayat wa man yuti illaha wa rasula fa ulaika maa alladina an'ama allahu alayhim min annabiina wa siddiqin waaye nag ku topp yàlla ak yonente bi di da nga ànd ci ñoom ñi nga xam ne yàlla defal na leen xéwal muy nabi oon yi ak siddiqo ak siddiqoon yi waaye topp boobu yàlla di wax nag mooy lan topp nag bu dee dëggal gi ñu wax moom dëggal moom mbirum xol la waaye topp nag ay cëre koy def dana leen ci rabia ibnu kaab al aslami mu wax ni mas na maa fanaan fi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu soxlaa jàpp mu andil ko jàppukaayam andil ko mboolem li muy ittewoo mu ne ma ana loo bëgg ma ne ko man de li ma bëgg mooy ànd ak yow ca aljanna jant bi ne ma te bëggoo leneen lu dul loolu nee na fi des loolu rek mooy sama itte nee na mu ne ko kon na nga ma dimbalee ci sa bopp bari ay sujjóot loolu danañ ci gise ni topp li muy tekki mooy la kooka di jëf mu doon bëgg-bëggam nga topp ko ca te ku ko def yàlla dina limaale ci mbooloo mu ni nga xam ni ëllëg ñoo yonente yi ak siddiqoon yi ak shuhadaa yi ñooy bokk benn martaba am na ku ñëw ci yonente bi ne ko man de dinaa julli dinaa seere ni yàlla rekay buur gëm naa ni it yow yonente bi yàlla nga maa ngi julli it julli yi juróom maa ngi joxe it asaka di woor weeru koor yonente bi ni ko loolu de ku ci dee ëllëg yaag nabi oon yi ak siddiqoon yi yéenay ànd daal di tàllal ñaari baraam ni ndare bu dangaa dog sa ñaari wayjur li fekk dogoo sa ñaari wayjur daal booy def loolu yi ëllëg fu ñu dekkale yonente yi ak siddiqoon yi da nga ànd ak ñoom beneen xadis imam ahmad nett li ko wax ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni képp ku jàng junni aaya ci alquran dañ la bind yomal xiyaam nga ànd ak nabi oon yi ak siddiqoon yi ak shuhadaa yi ak saalihoon yi beneen xadis yonente bi waxte yi at taajiru saduqu al aminu ma annabiina wa siddiqina wa shuhadaay commerçant bi nga xam ne dafa dëggal ca lam nekk te wér ca lam nekk ëllëg mook nabi oon yi ak siddiqoon yi ak shuhadaa yi ñooy bokk benn place bu ñu toog xadisu abi said ci ni ko imam malik natle wax yonente bi salallahu alayhi wa sallam wax ni aljana bi rawante nañu rawante goo xam ni nit yi aljanna rawante nañu rawante goo xam ni nit dañu nekk ci àjjana di seet moroomam mu nekk ci àjjana mu mel ni nii ngeen di seeni ab bidéew bu fàq ci penku jëm kaw doo xam ci moom dara lu lu bidéew baa nga ne ñu ni yonente bi xanaa kon loolu moom mooy martaba bi yonente yi nga xam ne ku dul ñoom du fa àgg mu ni walladi nafsi bi yadihi rijalun amanu billahi wa saddaqu almursalin mu ni ak giñ naa ci yàlla mi yor sama bakkan ni ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla te dëggal yonente ñooñu danañ rawante rawante bu tol noonu rawante bu tol ni nit nekk aljanna nekk fa ak moroomam nitam te du ko séene nudul ñi ngay séene biddiw bu fàq ci ci penku jëm sowu mbaa ñu fàq sowu jëm penku tegtal yii buñ ko jëlee boole ko aaya yi njëkk a jàng danañ ci xamee lan mooy al irada danañ ci xamee lan mooy as sidqu fil irada kon al iradatu sadiqa mooy ak murid sadiq ñaari mbir la yooyu dañuy jële fii ab baat ci alquran jële fële beneen composé leen tudde ko al muridu sadiq waaye lu ci ne dafa sax ci alquran kon danañ mën a wax ni murid sadiq mooy ki bëgg jëmm yàlla ki nga xam ne ay waxam ak i jëfam lépp ngërëmu yàlla la ci bëgg kooku ne fu mën a nekk ak lu tarixa yi wute wute ak lu njër yi wute wute ginnaaw loolu yi mooy pastasam rek foofu fu mën a nekk mënees na ko fa ne joxete tudde ko murid sadiq kon nit mën naa nekk murid sadiq te fekk ne ab cëram bépp mi ngi féete ci jàng alquran ak jàngale ko nit mën naa nekk murid sadiq te fekk ab cëram bépp mi ngi nekk ci aggu am koom di ko dépensé ci yoonu yàlla te yàlla képp tax nit mën naa nekk murid saadix te fekk ne amut am koom mënu la jàng alxuraan waaye day julli julli yu bari ak day woor koor gu bari waaye lu mu ci mën a doon na bëgg jëmm yàlla ci jëfam rek nit mën naa nekk murid saadix fekk ne ci kër ak julli la man ak di ñaan waaye doonut jàng kat alxuraan jëm doonut la nit mën naa nekk murid saadix fekk ne ci jihaad la ko doone la nekk murid saadix Xaalid ibn Walid nee na man de jihaad dox na sama diggante jàng lu bari ci alxuraan Xaalid ku jàmbaare woon na ci xeetu guerre waaye nag alxuraan lim ci jàng bari wut ndax amutoon jot gi ndax bi muy jëbbalu dafa tasanteeg xeex yi taxaw ba amul jotu jàng jàng alxuraan ji bari waaye loolu lépp ne kéwu ko doon murid saadiq ñu joxe ci benn misaal bu gàtt Xaalid bi ko Abu Bakar yabale ni ko demal saam mu dem fekk fa ñeenti kilifa fekk na fa Abu Ubayda ibnu Jarrah mu jiite benn arme mu fekk fa Yasid ibnu Abi Sufyan mu jiite benn arme mu fekk fa Surahbil ibnu Xasana mu jiite benn arme mu fekk fa Amr ibnu Xaas def na ñu xaajale ko lañ def ñeenti xaaj xaaj bu ne genn kilifa jiite ko ñuy xeex Xaalid bi mu ne dañ leen tey day ci bis yàlla yi la bokk nit wóoru cee ndamu nit wóoru cee daw dama bëgg seen jihaad ji ngeen sellal ko ngir jëm yàlla te jublu ci yàlla bi mu waxee loolu ni leen ni ngeen xaajale ko nag dafa mel ni adduna muy bëgg a xaajale seen diggante gis-gis bi ma am nag mooy da ngeen di def benn te jiital genn kilifa bu ëllëgee ci jiitu woon randu keneen jiitu bu ëllëgee keneen jiitu bu ëllëgee keneen jiitu ba kenn ku ne ci yéen dana jiite ñu rafetlu xalaat boobu daal di koy jiital bi ñu ko jiitalee mu xeex ba gañe noonu ci mu gañe tasante ndaw moomu wane ni Aboubacar génn na àdduna ba jaayante nañu ak Omar ibnu Xataab mooy xalifa bi Omar ibnu Xataab bi mu toogee dañuy folli na Xaalid ibnu Walid ndax moom dafa am xaj na wuute ay déggin yi doxoon seen diggante ba Omar bi mu toogee dañuy Xaalid du ma jiiteel dara daal di koy folli teg fa Abu Ubayda ibnul Jarraax waaye tawi dugg dëggu gi may wax rek ni mooy jikko ji ñu soxla yàlla képp tax ko jóg. dafa jàng bataaxel bi denc ko ngir bañ na ko yëgal nit ñi ñu ñàkk sa sëf bañ xeexee ba gañe mu ñëw nuyu Abu Ubayda ibnul Jarraax ci turu kilifteef ni ko assalaamu aleyka ayyuhal amir foofu mu wax moom Xaalid ne sant naa yàlla ñi àttee faatug Abu Bakar te mu ma gënaloon Omar waaye sant naa yàlla ñi dogal Omar mu jiite tey te mu waral ci man ma war ko sopp daal di wëlbati ko na mu waroon a toppe Omar mu toppe ko kooku mooy mu def saaga damaa jàpp ne bu doon nit ku jógoon ngir xëccoo àdduna dem ba guerre bi di bëgg a sotti Omar falu ñëw folli ko fal fa keneen la muy jëkk a def mooy yàqal kii ba dara dootu lijjanti dara dootu lijjanti ko te waaye lam def mooy lii ñuy taxawal bu nit ñi xam mukk ni Abubakar jóge na fi li ñuy lijjanti lijjanti ko ba noppi ba mu lijjanti ko ba noppi mu ñëw jébbali ko jébbali ko sell loolu mooy jikkoy murid saadex kon dafa feeñ ñooñu ci ahlul jihaad ñu ma ko waxee ndey kon waxtaan bi dañ ko tegoon ci ñetti tomb benn tomb bi mooy al iradatul amma murid goo xam ni dafa matale jullit yépp fu ab jullit mën a nekk rek mën nañ ko faa tuddee murid saadix ndax bu yëngutoo su yàlla te la muy yëngutu lépp ngërëmu yàlla képp tax ko yëngutu koo xam mënees na ni murid saadix lan mooy murid saadix ci tasawuf loolu mooy tombub ñaareel bi tasawuf du lu yees ci islam ba islam sosoo la sosoo woon la sosoo woon wala mënees nañ sax mooy jëmmi islam moom tasawuf ndax ci ñu sosu fekkiwul jëmm ji sosu ndax nit buy door a juddu ab liir la ngay tudde mu dem tuuti gis ngóor dem tuuti di waxambaane dem tuuti di bari dem tuuti ñu ko màggat te jënd kon tasawuf mu tur bi sosu ikkiwut sosu tasawuf waaye jëmmi turu sosu la waaye moo doon islam tamit ñu ko fi jóg mënees nañu sax mooy jëmmi islam kon lan mooy al irada te mooy ak taalibe ci biir école tasawuf boobu balañ caa àgg ñu xool lan moo tax ñu wooye ab soofi yu ab soofi yu muy ay werante am na ñu ni saam benn baat bu grec wala ñaari baat yuñ boole muy kalima yunaniya muy philosophia philosophia nag mu ngi tekki muhibbul xikma ku bëgg xikma ñoom dañu daan bari ca àll ba di nat seen bakkan di jaamu la ñuy jaamu naan sax ñu daan jaamu xiram waaye nag dañuy wax ne xikma lañ soxla ci biir loolu daanañu dem ba muhibbul xikma boobu doon xakim te mooy ab philosophie philosophe philosophia boobu baatub grec la moom la arab yi arabel di wax falsafa daab di wax philosophie am na ni tasawuf foofu la bàyyi ko ndax ñu ñu daan dem ba ca àll ba ñuy yéeg di jaamu la ñuy jaamu di not seen bakkan ngir di ñu bëgg xekk ma ñooñu wax loolu dafa mel ni tasawuf ñun dañ ko génne ci cadre din waaye loolu manees na niñ ngénte la ndax ñun tasawuf buñ koy bind duñ ko binde ci siin waaye ak saat lañ koy binde kon boobu dàqu na ni fii laa suufee yaa ci la bàyyi ko loolu dàqu na am ñu wax ni min a suffati suffa nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu gàddaayee màkk ñëw madina dafa am ay fuqaraa yu ñëwoon gëm ko jébbalu ci moom bi ñu jébbalu nag doon nañ ñoo xam ne ñu néew doole lañu dañoo dàqoon benn koñ ci koñu jàkka ji wax nañ ne mooy koñ bi féete càmmoñ ci wetu sowu ga koñ sowu ba ci wetu càmmoñ te lañ dëkkee ñu di leen tuddee ahlu suffa yonente bi bu ñu ko masaan indi ab sarax mu yónnee leen ko bu ñu ko masaan indil hadiya mu mas ca li ca des mu yónnee leen ko am na ni tasawuf foofu la bàyyi ko waaye ña koy dàq dañuy wax déedéet bàyyi ko foofu ndax bu fekkoon ni ci ahlu suffa la bàyyi ko kon bu ñuy wax suffi yu la ñuy wax waaye kenn du wax soofi yu kon jógee foofu ñun dàq nañ loolu am na ni ñu ngi jóge ci yàlla dafa tagg mbooloo li nga xam ne dañuy xare def benn rang saffu ñu ne ci saffu la bàyyi ko ndax yàlla tagg na ay mbooloo ci alquran ni inna allaha yuhibbu alladina yuqaatiluuna fi sabilihi saffan ka annahum bunyaanu marsus ñu ne ci saffu la bàyyi ko am ñu ne déedéet bàyyi ko foofu ndax bu fi bàyyi ko woon kenn wax soof yi kon saf yu la ñuy wax ñenn ñi ni ni ñu bàyyi ko ci suuf ibnu bishr ibnu udd ñu ni leen déedéet ndax ñooña ahlu xarya lañ yoo xam ne daanaka ci jamono jaaxi yi lañ ci nekkoon xamuñu lan mooy tasawuf ahlu tasawuf it xamante wuñu ñoom kon wërta bàyyi ko foofu am na ni ci safu la bàyyi ko ak sell nit ki day jaamu yàlla ba sell diggante mag boromam set wecc dara nekkatu fi ci ay nax-nax léegi ñu ne déedéet ndax bu bàyyee ko woon ci safu kon buñ koy naatal safawi yi la ñuy wax waaye kenn wax soof yi ñeneen dëkk ni ci suuf ngëndal gi firi dari xar ci la bàyyi ko ñun leen waaw boobu de yam na maanaam ndax suuf yi ñuy jëkk yi di ci ëpp ñu daan sol ay dari xar ngir seen dëkk àdduna kon loolu ay wax la yu ñuy wax ci tasawuf moom la seen di junj ci masaalikul jinaan ne fa mashtiqaaxu kilmati tasawufi muxtalafun fiihi bi aqwaalin tafi fa xiila suffatun wa xiila saffu wa xiila suufun xiila safwun saqfu wa xiila gayru di wa kullu minhum burhaanuhu mustahsan indahum daan ne aqwaaluhum fii ala alfin tazid taadaaduna laha huna laysa yufid waaye ba mu wax nag daan ne ñii nañ ci suufu la bàyyi ko ñii ne ci safu ñii ne ci safu wax nañ ci lu ëpp junni wax waaye toog di ko lim amul benn njëriñ di saa teg ne wal xaasilu sawfiyu aalimun amil bi ilmihi xaqiqatan walam yamil li am daal mooy ab soofi yi mooy borom xam-xam bu jëfe xam-xamam ci jëngu jëm fenn saara saafiyan min al akdaari mumtali al qalbi min al afkaari munqatian li rabbihi min al bashar musawiyan dinaara aynin bil madar léegi day mujj set wecc ci ay nax-nax de bari loolu ay xalaat diggante ma boromam ab soofi yu dëgg dëgg yëpp kayit fi junni ak ak ak doom yu suuf la yemale daal ni kal arde soof yi dëgg-dëgg dafay mel ni suuf suuf nag yor naa fawqaha kullu xadix wala turi min batniha illa ma def suuf mën ngaa fekk ab sën ci kaw waaye boo ren loon sën bi ba gas suuf su weex tàll nga fay fekk ab soof yu lu ko nit ñi mën a teg ak luñ mën a dal dal ci kawam ak luñ ko mën a wax biir ba xol bu set wécc moo fay nekk boo xam ne ñëpp jàmm leen di ëmbal ak bu baax an yatauha alkarimu wallaim walbarru walaasi wa tastadimu soof yu day mel ni suuf suuf nag ku baax dana ko dëgg ku bon dana ko dëgg ku tabee di ko dëgg ku nay di ko dëgg waaye du man fekk mel na dara suuf yi dafay mel ni aw miir bu xasee bay keral nit ku baax ki ak ku bon ki jullit bi ak yéefar bi li ci yemal ñëpp lay keral suuf yi dafay mel ni ak taw bi wàcce ci asamaan taw bi wàcce ci asamaan nag nit ku baax ki ku bon ki ak jullit bi ak yéefar bi lay yemale tool yëpp lay maase mandal na ab suuf yu dëgg-dëgg melokaan wu mel noonu lañ soxla ci moom daanañ nett li nii sëriñ Mbàkke Madina am na ku ñëw ci moom laaj ko xaalis mu jox ko ko am ko ah kii suñ biit lañ ko jox daf koy mandé mu ne joxuma ko yàllaa tax yàlla laa ko jox kon loolu mooy ab soof yi nga xam ne du xool ba xam kii muy jox xaalis bi daf ciy def lii mbaa daf ciy def laa day def rek te yàlla tax mu daal di dem ba ci mujj nag mu ne ku mel noonu daal ab soof yi la bu ko melut nag da ko woote waaye du ko awla fadu daawa alal maaruf kon murid saadiq fi ahlu tasawuf mooy ki nga xam ni bëggul lu dul yàlla al muridu man laa yamliku shay'an wala yamlikuhu shay'un ñu ne ab murid dëgg mooy ki nga xam ni moomul dara dara moomu ko am ko wax ci ñoom ni takkoonu muridan summa fiika iradatun ah da ngaa bëgg doon murid ba noppi di am bëgg-bëgg dana fa in lam turid shay'an fa anta murid boo demee ba bëggatoo dara de ngay door a nekk murid am na ci kilifay tasawuf yi ku ñëw ci man ni ko man damaa bëggoon nga jox ma sirru bi ñuy tuddee kiimiyaawu saada kiimiyaawu saada sirru la boo xam ne dañ naan boo ko amee loo bëgg ci àdduna da nga ko am bu ñëw di ko laaj benn nit yàlla mun ko waaw mën naa la ko jox waaye nag lii sart bi da mooy na nga may duyal ndaa yi saa boo xëyee saa boo tojlee na nga yeesal sam jàpp te saa boo jàppee na nga julli ñaari rakka door a toog di yàlla laa liggéey loo boo demee ba ma xool ba nga yeyoo ko dinaa la ko jox taalibe bi sax ci dàkk di xëy di duy ndaa yi saa bu tojlee dem jàpp te saa bu jàppee julli ñaari rakka door a toog di ci dund di ci dund di ci dund ba benn bis mu ñëw ci tan bi ba yedee baag bi mu génn fees dell ak xaalis ak wër mu ñëw jox ko sëriñ bi ni ko lii de man dama koy jukki far mu génn doon lii sëñ bi ni ko loolu la doom yaa ko moom mu ngi ko waaye la mu yëg ci sama xol de mooy soxla mu ci dara sëñ bi ni ko bis ni ki tey sa lépp kii mu yaaw saada nit ki saa bu demee ba dara ñoratu ko lu dul yàlla lu mu bëgg am kon murid saadix mooy ki féetewoo ak yàlla nga xam ne lu ko cay fekk da ko cay fekk waaye leneen taxu ko woon a jóg loolu kon loolu mooy al iraadatu saadixa ci tasawuf murid saadix mooy ki dëggal maana al ubudiya dëggal maana al ubudiya nag yombut imaam Saarani mi ngi wax ni benn bés damaa toog di xalaat may yi yàlla may wàll yi ak cër yi lañ yàlla defar di ko xalaat di ko xalaat di ko xalaat ba benn xaala jàpp ma ma ma gëmante ni gay am lu ma woo ni ma yow Abdul Wahab na nga xam ne su ma la joxoon mbooleem lu ma masa may nit dafa la kasfu goog gàncax goo gis da nga xam lay njëriñam dafa la kasfu goog ñun boo gis da nga xam lay cosaanam ak fa mu bàyyeekoo ak fa mu jëm loolu lépp de ma la ko defoon ne du tax nga tekki dara fi man te du dangaa dëggal maanaam ubudiya Abdul Wahab daal di jóg ni kon danaa gëstu lan mooy dëggal maanaam ubudiya mu dem ba gis ni nekkee dëggal maanaam ubudiya waxuma la ngay jaamu yàlla ngir bëgg ci àdduna waaye di ko jaamu ngir bëgg ci àjjana képp rek day dox diggante nit ak taxqiq ma maana al ubudiyya mu ni ndeke dëggal maana ubudiyya di jaamu yàlla ngir di xool benn cër bu wàllu yu am ngay jaamu yàlla ngir bëgg am cër booba sax boo koy def dëggale goo maana mi tax yàlla bind yooyu ambiyaa u yëpp ak wàllu yooyu dañu daan dox ngir dëggal maana moom yi yëmbut abul xasan assaadali wax na ni wépp tur yàlla woo wax di ca xëcc njariñ mbaa nga di ca jañ lor dafay dox sa diggante ak sa borom kiiraay lay doon sa diggante ak sa borom nga xam ni li mu jubloo foofu mooy taxqiiqu maanaam al-ubudiyya te mooy jaam bi dafa war a xam yàlla daf koy bind ngir mu jaamu ko mu ñëw di ko jaamu te gallu ci dara li fekk yaa ngi ciy gàll dalal kooku kiiraay lay doon nen moo tax lu benn tali bi bu ñëw ci moom di sàkko ci moom mu ñaanal ko ci mbiri addunaam mu soññ ko ci ay yoon ginnaaw bi mu wax bëkk néeg bi ni ko nag ma ko soññal sëriñ bi di ko bëkk néeg bi soññee ba soññal ko ci ba soññal ko ci abul xasan ne ko dama ko rus dama rus a taxaw di ñaan yàlla lu jëm ci adduna mu ne ko waaye gis naa saa boo jullee ba noppi taxaw di talal si loxo di ñaan mu ne ko loolu ñaanu jaamu yàlla la bokk sa ñaanu aajo ñaanu ko aajo dafa andi sab ñu xamee ci kon rawante bi nit ñi rawante ci kii dëggal maanaam ubudiyya muy di jaamu yàlla te yàlla képp tax ak ka ca gàll dara donte sax nag ki ciy gàll dara bu amee xeeñal te sàkku ko ci yàlla bu amee lu lu lu lu muy ragal sàkku ci yàlla mu musal ko ci loolu ab cër féetewoo kaw waaye nag leneen nag dafa dafa dafa amul moom muy jaamu yàlla te yàlla rek tax bañ cee gàll dara kon tekkal yooyu ñu tekkaloo ci lii ñu waxagoon ci wàllu tasawuf danañ ci dégg ni li ñuy tuddee ak taalibe fii muy al iradatul xaasa ci tasawuf ak al iradatul amma bi ñu jëkkoon a tudd nga xam ne jullit yëpp ko bokk ñoo bokk benn sowukaay bu ñu sowee te mooy seen i jëf yëpp yàlla képp tax leen a jóg tasawuf nag seen ngër ñu ngi ko teg ci ak dégg alquran ak sunna si yonente bi ak xel mu leer nan déglu imam Xasali mu leeral imam Xasali wax na ni nit ki su muy jëkk a jógee di soow di soow bu yoonu jaamu yàlla ab xalaat lay doon bu bàyyi ko ci yàlla tawféex la yoon bi ko yàlla defal ndax mu ne tawféex jooju nag nga xam ne moom la yàlla defal ab yéefar mu ñëw dugg si ci islam moom lay defal ab jullit bu nekkoon ci biir islam ngir mu sóobu ngërëm jaamu yàlla mu ne moom la yàlla junj ci ayab afaman sharaha allahu sadrahu lil islami fa huwa ala nurin min rabbihi moom la yonte bi sallallahu alayhi wa sallam junj ci hadis bi ne ak leer bu tàbbee ci ab xol xol ba dafay daal di leer ñu wante bi ndax leeru yàlla googu ngay wax am na mandarga ci nit ki mu ne waaw mooy ana ban béréb la faatoo ñun ñoo def ci tarixa bu jëkk boobu ba suñu toll nii kan moo ko jëkk a dundal fii ci Afrique moom tarixa boobu ban dëkk la tarixa bi jaare pour dugg fii ci Afrique ci ban béréb lay appee fii ci Afrique fii maanaam ñu ñu koy dund ci ban béréb lañu appee fii ci Afrique ñoom ñoo ko jëkk a jëlee ci ki ko jëkk a dundal fii ci Afrique gii lan mooy taarixu tarixa bi ñoom ñoo kilifa yi fi def ba léegi moom ñii di sëriñ bii lan mooy mbiram lan mooy lan mooy dëgg-dëgg cosaanam moom sëriñ bii sëriñ bii fi teew ak moom kañ la dugg ci tarixa bi ak ñan la ko jële ak lan la may wax ci xibaari boppam loolu mooy juróom fukki laaj yi ak juróom ñett yëpp waa bi laaj tey sëriñ bi bu ñuy tontu mi ngi tàmbale ci bismillahi arrahmani arrahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan ahad daan ni ko tarixa bi lii fondement bi mooy al imaanu bi tawhid wal islaamu bil fiqhi wal ihsaanu bi tasawuf kon iman islam ihsaan ñooy fondement tarixa bi juddu juddu juddu ki ko sos nag wala ki koy jëfandikoo fu mu mën a juddoo ci dëkki islam yi rek foofu mooy bérébu juddam béréb bi ngay laaj fan dëkk it noonu la demee ñoo ko jëkk a topp it ñu ñu doon sàkku xam-xam ñoo ko jëkk a topp lan la jublu woon jëm yàlla képp ko taxoon réew yi nga xam ne ci la ab murid wér di réew yëpp mooy réew jullit béréb bu mu faatoo it béréb bu fi nit faatoo te bokk ci niti tarixa yi béréb boobu mu faatoo mooy béréb bu faatoo ñun ñoo def ci tarixa bu jëkk boobee nag ñun ñoo ko def ba léegi mooy al mu'minuuna al muslimuuna al muhsinuuna xaysu kaan jullit yi nga xam dañoo gëm tey jëfandikoo ngëm gi te da ko rafetal fu ñu mën a nekk rek ñoo def ci tarixa murid boobu ma lay wax ñu ko nag kan moo ko jëkk a dundal fii ci Afrique moom Afrique bu soow jant gi mooy Cheikh Abdul Qaadir Jilaani ak Cheikh Abul Hasan Ash-Shaadili ak Cheikh Ahmad Tijaani yow kan moo tarixa bi fan la jaare ba dugg ci réew yi ci sëriñ si egg ci yàlla te di ko eggale nit ñi ci ñoom la jaare ban béréb la ñu ëppee jamono bi ñu toll mu ne ko jamono bi ñu toll nag daanaka kenn gisatu ci réew yi koy kuy dundal tarixa bi dëgg-dëgg ni mu war a dëgg dëgg yi nañ ko war a dundale daan na ko ñoom ñoo ko jëkk a jëlee ci sëriñ si nag ñi nga xam ne jëm yàlla leen ñor ci jamono dalee ci jamono yonente ba ci sama suñu jamono tey jii ñooñu ñoo koy jëkk a jëf bu tarixa bi sosoo ñoo koy jëkk tey daan na ko nag taarix bi mooy xijratu nabi loolu mooy taarixu tarixa bi ni ko kilifa yi ngay laajit mën naa la ni jamono bi ñu toll benn kilifa desu ci kenn man mii di wax ak yow nag lan mooy sama cosaan samay cosaan mooy iman islam ihsan kañ laa tàbbi ci tarixa bi nag maa ngi lay xamal ne ci ay nit laa ko jëlee woon ñoo xam damaa jàppoon ñu wér lañ ci ni ma ko gisee ginnaaw bi maa am lu ma leer ci ne la ma yaakaaroon amul sama borom yóbbu ma ci géej gi jox ma ñett wér yëpp jaare ko ci yonente bi ngir bari gu ma bari lu ma koy liggéeyal def na alquran ak xaj ak sunna it ñu doon njënkaan luñu ma dégg loolu moom la sëriñ bi leeral ci mbiri boppam kon tontu yooyu buñ ko dégloo danañ ci xamee ni yoon wii nuy dund nii moo yoon wii nu mujj jàng ci tasawuf bi nga xam ne mooy al iradatul xaasa bokk it al iradatul am gi ma jëkkoon wax ñu gis ni kon amul différence tarixa bi dafa ñëw rek ngir yeesal dina yonte bi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi nag dund na ko ci maraaxila yëpp dund na ko doon mu'min doon muslim doon muhsin dund ko doon mutaallim sàkku xam-xamu maarif dund na ko jaar ci ay sëriñ di leen jox addiya di leen liggéey dund na ko cib niga nit egg ci yàlla di ci eggal ay nit kon boo leen fu tasoo fi jaar sëriñ bi jaar na fa dund na ko ndax dafa teel a jàng alquran mokkal ko jàng xam-xam yi jëfe ko boobu tasawuf yi ñu ko xamee ci téere tasawuf wérd yi mu jële ko ci lenn ci ay sëriñ ba jéggi leen te jéggi dafa mën a nekk ndax nit ki bu fekkee dañu ne ànd di dox ci yoon yow ngay dox guddeeg bëccëg moom muy noppalu war nga ko mën a wax ndax am na xas ligum defam bi yàgg di wax ne xoqal bukaa wa ala saadatin amwaat ab kil araada alayhim kar samawaat xas li googee lu ne tagg na leen ko ci dem na ba wax ne ba kayitu xablu ala saadatin amwaat تبكي الأراضي عليهم كالسماوات فحست بعد بكائي ما حويت به رضوان من فيه غابوا بالحلاوات namu tàggee ñooñu te xoqal ba kaw wax na ci boppam ni jëyoon na leen waaye ginnaaw bi amee nañ ca gërëmul yàlla wax na ne sadaqtu bi ayi qawman jaahadu zamanan ahyul asiya liman yahbu bi binnaat ni dem naa daraw ci taxañ ko ma yàlla taxañal yoon te soof naa ci mbooloo moo xam ni jihaad nañ jër yu yàgg di dundal guddi yi ngir jëm yàlla sadaqtu man laazamu irdaa malikina bi kawnihi liya za fawzin bi jannaat mu ne ñi nga xam ne mosu ñoo dem di sàkku ngërëmu yàlla de dem naa ba raw leen de nekk gu ma yàlla nekkal naw mi qiyaamun ka awraadin kitaabatina wax na ni dem na ba nit ki fa mu waroon a teg ay nelaw moom taxaw di naafila la fay teg naka noonu fa nit ki waroon a taxaw di def ay lawraat moom bind la fa teg di tagg yonent bi ak di jëli ci moom naajaytu mawlaaya awaaman wa karramani wa bixtu fi lbahri lagwan bil munaajaat muy def bu yàgg ay at bu yàlla na ma sama borom mu defal ma teraanga ma jaay ay neen ca géej ga jënd ko ay di yàlla jàll sëñ bi jaar na ci loxoy baayam ci la jëkk jaar ginnaaw bi mu xamante ak Cheikh Sidiya Baba dem jëli ci moom wér de yor naa fi ab bataaxel boo xam ni dañu ko ñu ngi sàkku ci yow nga yónnee nu sa mbindum bopp moo xam ni da nga nu ci jox ndigal ci wér de yi ñu di ko jëfandikoo ak di ko joxe bu fekkee yeyoo nañu ñu ko sax daana nu ko jëfandikoo di ko joxe waaye ci ndigal yi lenn ci murid yi rek lañu ko daan jële waaye dara wër lu ko weesu li ma agsi gutoon ci yow bi ma xasee agsi ci yow nag gannaaw yàlla ak yonente bi dutuma jàpp ci kenn ku dul yow lii ab lettre la boo xam daf ko bind baabawul Cheikh Sidiya ñu xamee ci ni kon fu nit war a jaar ci ak taalibe jaar na fa ànd ak ñoom ci teraanga ji ma tëkk ak cofeel ak worma ak di leen liggéeyal ak di joxe alal daana wormaal woy juram ba siggi jaakaar mu daw ko def daan ko liggéeyal ci fànn yu bari bind jàngale lemu ci tool yi xeeti liggéey yu bari yu bokkut yaa si biir baab moomu mu daan ko yónni ay hadiya ginnaaw bu mu jàppee ci moom gis naa fi bataaxal boo xam ne dafa bind ni ko yónni la ay nit ñu indi ñeenti gileem bu ñu demee dagana la fa nekk ci ay bagage ñu sëf ko lew na la doom yaag sa mbokk loolu ab bataaxal la bu mu dem sax studio di ko wax addiya ñu koy jox bi ci des mu mel ni daf ko yónneewoon addiya mu jël addiya bi yónneewaat ko gileem dañ ko safoon mu ne ko gileem ñaari gileem yii lew na la doom na nga xam ne moom ma ko yaa ko moom kon li ñu gis ci yoon wi nit ñi di ko doxee rek aw jiwu la wow sëriñ bi moo ko jiwoon mu sax yàlla saxalal ko te dam koy def yàlla képp tax mu di ko def defa ko woon ngir am ni dëggal gu sëriñ Tuubaa dëggal maanaam xubóot yi mat wax nag dafa feeñ ci ay waxam ak jëfam ndax wax na ni walam asal ah bu defoo tax bay ma musuma dañ di jaamu yàlla te jaamu gi màggal ko rek tax wax na ni walastu daa dafain wala taajal bi man day sama jaamu jëñ ma ci lor xëcc ma ci njëriñ wax ko ni ko liyee jalabta wa dafaxta an ni maxtarta bi wala ak sa yaadal man man day li nga ma bëggal yaa ma ko xëccal la nga ma tànnale di yaa ma ko jañal waaye man xëccu ma jañu mu ne nga ab liggéey nit woote naag liggéey yu bare bare yoo xam dañ koy liggéey ngir di ca sàkku addu moom nee na lam yujibil xidmata xubbul asjadi bal xubb man juila nuura sujjadi liggéey bi may liggéey jante bi bëgg wóor sa xaalis taxul ma ko def waaye ak cofeel ma am delu ni daani li ixdaani nabi xubbu saati li tax may liggéey jant bi de mooy bëgg jëmm jawaay du len delu ni daani ila matxi nabi xubbu saati li tax ma di ko tagg di du dara lu dul bëgg jëmm ja rek dañu wax ne axdimuhu ila duxuli janna liggéey bi ma koy liggéey de dama ko fas di ko liggéeyal ba bu may dugg aljanna ndax foofu lay yem murid bi day gis naa bu ñuy liggéeyal sëriñ bi dañuy yàkkamte gis naa sax ba ci xel ko mi dañuy ñu bëri dañuy yàkkamte bëgg mu jeex lool ñenn ñu ne dañuy tarbiya waaye li ñuy wax mooy sëñ bi dafa yeex a yeewe moom gis naa muy wax ne wajaal nii min man yax ji moo na xoofil jinaan ñu yàlla yàlla nag ma boole ci ñooy liggéey yonte bi ci biir aljanna kooku waxuma la noppalu fii ci àdduna waaye àjjana sax ba bëgg faa noppalu waaw kon am na beneen cafka bu mos bu bokk sa cafka yi nit ñi di mos am na benn sëtu Cheikh Sadibou boo xam ne doomi Afghan la dañoo daje fële ci gànnaar dañ nuyoo dañuy waxtaan mu wax ma ci biir waxtaanam ni ma Cheikh Sadibou mas naa dugg xalwatu ñu won ko ci biir xalwa bi mbooloo muy yëngutu te adduna képp tax leen di yëngutu ak mbooloo muy yëngutu te dëggut ci ëllëg tax leen di yëngutu am yeneen jëmm ji leen romb jàll bokkul ci benn ci ñaari kuréel yooyu Cheikh Sadibou ni ana kii moom ku mu doon ñu ne ko kii xaadimu rasul la tudd mu ni leen moom ana lu mu bëgg ñu ne ko maqaamal uboo di yelay sàkku maqaam li muy sàkku mooy di jaamu yàlla ngir yàlla nangu ni kii ab jaam waaye fekku ci leen daan ne ko bis ni ko tane maqaam moom doon sàkku am mu ne bi Cheikh Sadibou xëyee dafa bind ab bataaxel jox ko doomam di ñuy wax Mahfouz génne ko ko ci Serigne Touba di ko xamal ni ko won nañu ma ne ma maqaam mi nga doon sàkku am waaye bi Mahfouz demee am na beneen bataaxel bu jógee ak moom jóge ci Serigne Touba mu di ko xamal ni ko dafa am maqaama mu ma doon sàkku ci sama borom mu may ma ko ma di la ko seere nga xam ñaari bataaxel dañuy jiyoo moom moom yi mu nett li ma ci jotaay boobu ni ma benn bis amiru ndar del dafa woo Cheikh Ahmed Bamba ak Cheikh Sidiya ak Cheikh Sadib bi ñu leen woo Cheikh bañ dañ ñoom la Cheikh Sadib ni ko dama Cheikh Sadib ni ko ni amiru ndar damaa bëgg li nga nuy doy bala nga ko wax nga may ma tuuti ma leeral la mu ne ko mu ne ko man sëtu yonente bi la xaqal sama sama teraange adduna du jóge ci aw ñàkk du ma def lu dul weesu lu weesu tàllal sama loxo ñaanal ñi mu ko mu ne kon man lu ma yëngatu ngir sama njaboot ëllëg nga tax ma yëngu mu ne ko mu ne ko Cheikh Sidiya Baba mii borom xam-xam la bu jëfe xam-xamam ba leeru xam-xam wuyu na ko teraangaam dootu jóge ci ci aw ñàkk su muy bàyyi ko mooy nit ñi dañuy ñëw di ko ñaanloo di ko jox teraangaam waaye du dootu ñaxati li muy yëngatu lépp ngir am njabootam ëllëg Cheikh Ahmad Bamba mii nag du kenn ci ñun ñaar moom maqaama mooy sàkku ci boromam yéen xamu leen ko sax ba di ko bëgg waaw loolu la Cheikh Sadibou wax amiru ndar ci jamono jotaay boobu Cheikh sëriñ Bachirou dëggal na ko ci mu neen baax xadim wax ne sëriñ bi daan def léegi rek mu am tawat bi matt di ko def mu ne nag doo ma tëju nag fu ma sa nekk dinaa ko ma ma sa benn bés tawat bi matt dal ko am fuñ amoon ci moom yaakaar mu bind ay bayit def ci ak ñaan di ci ñaanal sëriñ suñu Bachir ne bi ma demee ba fekk ba jox ko bayit bi bi mu ko xoolee dañ ne ma ana ko ko def nee na ma ne ko diw mu ne ma boo demee ne ko ne ko tub ndax fekk na maag sama borom loo xam ni ëppante naag ñu may teg dara may sàkk mu def suñu basir ni ci loolu yi ci laa xamee ne kon ndeke ñaan gi muy ñaan ci biir xasida yi lépp maax du lon boo di yàlla ndeke jaamu yàlla gu sell yëpp ci la waaye du rax ba du rax du ak xamantef gu mu am ba tax muy ñaan du am ragal gu mu ragal ba tax muy ñaan yàlla musal ko waaye dafa jubloo jaamu yàlla ci ñaan boobu kon sëñ bi kon dafa dégg diine ci ñun ni diine mate li am nag mooy ñaawug dégg mën naa am ci ñi wax ne dañ ko bëgg a topp ñaawug dégg mën naa am te ña ko jubluwut a topp nit mën na koo jubloo topp ak dégg ñàkk ak déggam yóbbu ko ci mu jàpp ni sëriñ bi ak yonente dañoo jógee ci dara nit mën na koo ñàkk dégg ba tax mu seen kuy jëfandikoo lu bokkut ak li yonente bi andiwoon mu jàpp ni sëriñ bi daa woote lu bokkut ak yonente bi waroon waaye sëriñ bi mës ta jóyoo ak yonente bi ci dara ndax nee na diini kitaabul Mustafa laa xayru murid yi ko jëkk a topp ci daal bi it ci loolu leen daan yàq ndax sëriñ bi si wax nañu Cheikh Ibra Fall moo ma nett li ni ma man de damay jaayante sa baay dama ko ne damaa bëggoon sëriñ bu mat sëriñ bu ma mën a eggale ci yàlla sëriñ boobu mu bëgg ak jikko yi ma soxla ci moom nag moo ko gis toon lu weesu gis ab bàmmeel ñu ne ma bàmmeel bi sëriñ bi mel noonu moo ci nekk li ma bëgg sama pas-pas mën na ma ko may ci moom ñeneen sëriñ bi ko ma def ma gis toon dara lu bokk ci yonente bi lu dul ñu ne ma asamaan sii moo ko daan tiim suuf sii ci la daan dox li ma bëgg ci moom sama pas-pas mën na ma ko may ba mu ko ne acca mu ne ko acca sëñ Tuubaa ne kon nag damay jaayante ak man ci topp ndigal rek bàyyi tere bañ maa soxlal fépp fépp ci àdduna waxuma la kër ak waa kër nee na Cheikh bi jaayante ak man ci loolu kon sëriñ bi naka jëkk yàlla yi kese kese kese iraadatu wa ci la ci la daan jaayante ak ñun sëñ Assane Ndiaye sëñ Basiru daan wax ne sëñ Assane Ndiaye daan wax ay taalibeem ni leen du ma leen digal loolu ak jaamu yàlla ndax bi ma bi ma jébbaloo ci sëriñ bi ak tey musuma gis mu digal ma benn ndigal bu jëm ci jëmmi bopp ak jaamu yàlla mu digal kon du ma man lu dul digal samay taalibe ak jaamu yàlla wax na ni génn na benn bés fekk murid yi werante mun leen ci li ngeen doon wax ñu ne ko xanaa dañuy wax ci diggante tayeexa yi mun leen du ngeen ay yaxoota ki nasraan ba ku ne naan sa morom lastuma la shay ay xeetu Muhammad ngeen benn ngeen kon yoonu murid kon la ko lal la ci ëpp solo al mahabba wajhu allazi yuhibbuni yab yabdu ko sëñ Tuubaa wax dafeel sëñ Tuubaa nee na képp ku ma sopp sa kanam dana weex bés bu kanami way taxee di weex al xidma muy liggéeyal ko te nee naa xafistuma séena nit dafaatir laa takun xan xidmati bi faati ma wax ni li ma làq li ma mokkal day ëpp nañu koy bind ci ay tere kon ba muy liggéeyal bi ci sonn ab junjët jàng alquran nee na kullu muridin bi yaluusu fal yu dem tilawatan li xayri zikrin xadri jàng xasida nag dafaa wax ne kullu saidin adraa xasaidi bil ictiqaadi asa bil xasaid ku taxee day bu gisee samay xasida te gisee ko pas pas képp lañ ci góobe dana ko am kon yëpp ay point la yoo xam ne dafa am ci biir tarixa bi wax nañ nag sëñ Fallu am na ko mas a ñëw ni ko jàng xam-xam mënta ñàkk sëñ Fallu ni ko ku bëgg dañu réer da nga ko def mu ne ko jaam yàlla mënta ñàkk mu ne ko ku bëgg dem àjjana ëllëg da nga ko def mu ne ko liggéey mënta ñàkk mu ne ko ku bëgg a tedd fii ci àdduna da nga ko def waaye nag déet mu ne ko waxee li tax déet nag moo tax ma ñëw di la laaj ana la doy kon mu ne ko ak taalibe rek am solo mu ne ko luy ak taalibe mu ne ko ak taalibe mooy ab yar ndax nit ki bu dàqoon a jaamu yàlla ci àdduna bi te yaruwut des na ko futti caw ko nit ki bu bu bu ëpp ñëpp xam-xam te yorewut des na ko futti caw ko bu liggéeyoon bu ëpp ñëpp alal te yorewut des na ko futti caw ko kon xamee nañ ci ne ak taalibe bi buñ ci wax ci biir tariixa bi ab yar rek lañ ci mu yar nday jaxat nee na murid bu dëggal dafay dog lëf nga lëf du ko dog day cor lëfit dal di waaxu yi wéy nga lëf du ko cor wax ne ni murid dëgg yombul la yombee nga wax ni man ab murid laa te doo ab murid murid dëgg day dee te deewal ndaxam li day métti métti demul ak murit amaanaa nga gis waa ji tëb dal di dee te doo gis ku tëb dal di def ab murit te it léeg nga jot waa ji dox ci murit ba am ay murit nag te kat dug murit te léeg-léeg nga jot waa ji dox ci murit ba dundam ba xëy jee mu réer murit sax ab murit ak tëddul ab murit ba bis pénc lay leere yeewul murit moom noonu la ko gàttalee xalaaj dañ koy seleb ba di ko waaj a rey am ko ñëw ne ko kan mooy al murit sadiq mu ne ko li gën a néew li gën a yomb ci al murit sadiq mooy li ngay seen ma ma ñu teg ma ko ñu tey mu ñu seleb ko di ko waaj a rey kon ci gàttal ak murit mooy jaamu yàlla ak nangoo liggéey suñu tuwaale ne oteeno ilaahi aadiman lil wasila sëñ Fane daan wax ni da ngeen di fexe ba kuy jaamu yàlla ngeen dàq ko kuy liggéey ngeen dàq ko bu boobaa da ngeen doon murit dëgg waaye loo ci def bàyyi la ci def rek léegi dina am ko la ko raas sëñ Fane di misaal ak murit ci ni ñu ne ni kuy tàngal ataay boo andee ataay ak suukar te amul ndox doo amagul ataay boo andee ataay ak suukar ak ndox te amoo ay xal doo ko am boo andee ataay ak suukar ak ndox te amoo fourne boo ko tegee doo am ataay kon ak murit dëgg mooy ki nga xam ne mboolem yu baax yi daf koy dajale def ko mu dem leen fay mu teg ko yor loolu mooy dëgg dëgg ak murit ñett yi ne Sëriñ Tuubaa mas naa dajale mas naa wax nañ ko andil fukki jàngkat ak ñaar ñu andi fukki kaang ak ñaar mu laaj fukki kaamil ak ñaar ñu andi ko mu wax ñu jox kenn ku ne ab kaamil wax nañ ko andil fukki saakuy kemb ak ñaar ñu andi fukki saakuy kemb ak ñaar kenn ku ne ñu teg benn saaku kemb ci mu laaj fukki takki kase ak ñaar ñu andi fukki takki kase ak ñaar kenn ku ne ñu teg benn ci sa kaw saako mu laaj nañ ko andil fukki pañ ak ñaar ñu andi ko mu ne kenn ku ne nañ ko teg ci kaw ñu andi fukki takki ataaya ak ñaar ñu ko defee ba noppi sëriñ bi ni leen yoonu murit ak noonu ñu leen di jóg ci njël di jàng alxuraan bu ñu xëyee ni fii bu dem ca tool yi liggéey bu ñu ñëwee sangu ba set jël seen doon xasee di ko jàng dinaa ataaya ataaya kan yéen loolu ko fay def foo mën a nekk ab murit kon njàngale mu leer la moo xam ne daf ko daan jàngale benn bis ma ni sëriñ Saliou man damaa gis yoonu murit moom dañoo fonk kese la di wax ni murid daa war a naan kese damaa xam ne suñ ko sukkandikoo mu ne ma sëñ bi de ba muy yebal suñ ma sàmba suñ Saliou suñ ma sàmba ak suñ ma saa di leen sant ci ay àll ba mu leen joxee ab kaamil kese suukar la leen jox loolu nag kon day mel ne ab ponk la ci tariixa bi ndax ku yebal nit mu war a naweti joxoo ko ab dund joxoo ko daf nga kese suukar day mel ne ab ponk la ci loolu la ma ci tontu kon bu ñu dajale lépp rek murid saadeex mooy ki bëgg jëm yàlla ci ay waxam ak jëfam di déglu ndigal di ko topp ci la ko neex ak la ko naqari li féeg du ak mooy yàlla ku ne nag di jëfe dana mane waaw ku ne di jëfe dana mane nit ki yàlla mën na ko def mën a jàng alxuraan mën a jàng xam-xam mën koy jàngale te mënta di dig ëkk nit ki yàlla mën na ko def mu mën a dëj ay ëkk te mënta jàng alxuraan ak xam-xam nit ki yàlla mën na koo def mu mën di sikar ak di jàng xasida ak di jàng alxuraan waaye bu ñëwee dëjloo ay ëkk yi di ci mën dara kon kenn ku ne dañ koy bàyyi muy doxe ca aw maninam te lay fondement ba rek na doon bëgg jëm yàlla yàlla képp tax ci liggéey liggéey sëñ bi saa daana wax ne sëñ Tuubaa ci ñeenti mbir lañ koy liggéeyal ñeenti mbir ci lañ koy liggéeyal sëñ Tuubaa soxla na borom xam-xam bu am xam-xam te bëgg koo jeexal ci yoon yàlla bëgg ko def ci yoon yàlla sëñ Tuubaa soxla na borom xel mu leer mu rafet te bëgg koo jeexal ci yoon yàlla sëñ Tuubaa soxla na nit ku toll ci digg dooleem te daraja ji bëgg ko def ci yoon yàlla sëñ Tuubaa soxla na alal ji law te alal ji law jooju ñu bëgg ko def ci yoon yàlla ñeenti yi ci la ñuy liggéeyal sëñ Tuubaa kon yoonu murit a ngoog wala boog suñu déggin ci ak murit sadex mu ngoog ñu daane la ko wa man yuti llaha wa rasulahu ulaika maa alladina anhama allahu alayhim min annabiina wa siddiqina wa shuhadaai wa salihina wa xasna ulaika rafiqan wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di sant bokk yëpp di gërëm di dellu di ñaanal Sëriñ Saliou Mbacké yàlla yàggal ko fi lool samay ko ak wér def ñu doon murit yu Sëriñ Tuubaa nangu seenu murit wassalaamu aleykum wa rahmatullah
waaleykum asalaam wa rahmatullahi wa barakaatu sëriñ bi am nañ mbégte bu baax a baax a baax ci waxtaan wi ni ko traité mel na ni yaakaar naa ku doon diglu kenn biñ doon publicité fan yi yëpp yaakaar naa ku ko dégg tey xam na ne jox na ko ak xam bu wér ba ku ko dégg te jëfe ko da nga fi jëlee njariñ loo xamante ni waxuma la àdduna waaye dana la mën a defaral sa àllaaxira kon jazakumullahu xayran ñaan yàlla mu guddal fan yi may laa wér yokk sa xam-xam ba li nga yéen a liggéeyal lislaam yéen a ko liggéeyal xaadimu rasul suñu borom defal la ci lu kawe njort kon noo ngi sant bu baax a baax xanaa di fàttali mbokk yi rek ne yéen a ngi déglu seen rajo Lamp FM 97 point 4 kaddu gi di bawoo fii ci Touba Gare bu Ndaw kër Serigne Ass Diop ci wetu hôpitalu Ndamatou kon du ñu def lu may sant mbooloo mi nga xamante ni teew nañ ngir sàkku si ak xam ci jataay bii bokk na ci ñu ñu jiital ci cant googu ak cheikh ahmadul rafaa mbàkke mu cheikh mahamadul fadil ak sëriñ afiya buso mi nga xamante ni mooy njiital daayira bi ak mbooloo mu takk lool nag moo xam ne mënee su koo lim waaye buñ waxee ñaar ñooñu rek buñ leen ci jiitalee mel na ñu yóbbaale lañ ñëpp kon ñoo ngi sant ñëpp ci bàyyi giñ bàyyi seeni soxla ngir ñëw fekk ci jataay bu tedd bii ñu defee ci barab bii mu mel ni ni ko sëriñ Bachir waxee rek yoonu murit kon mi yoog képp koo xamante ni da nga doon laaj lan mooy ak murit saadix lan mooy murit gu dëgg kon sëriñ bi leeral na ko bu wér mooy koo xamante ni kon ci gàttal mooy koo xamante ni lenn ñëru ko lu may jëmmi suñu borom lépp lu muy def yàllay kese kese moo ko tax a jóg mel na ni ni mu leeralee yoonu murit ñu wax ne lu fi yàgg la ak noonu mu ko jàngatee ci lettre yi nga xamante ni lettre bi nga xamante ni gouverneur général bindoon na ko Cheikh Ahmadou Bamba maa ngi tiim benn xutba boo xamante ni Cheikh Mahamadul Fadil moo ko def ci màggalu Touba ci atum mille trois cent soixante onze hijriya ba mu ciy leeral yoonu murit noonu rek la ko leeralee daf ne mooy yoon wi nga xam ne yoon wu kawe wu sell wi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam jaaroon ak saxaabaam ya ak gaa yu baax yi ñëw gannaawam ba suñ jëmmi tey jii daan na ko nag ab jubluwaayam mooy jublu yàlla yi kese jox lépp te lépp nga jox ko yàlla du mooyi lépp lu dul yàlla du mooyi lépp lu lay xëcc jëmale ci àdduna ju suufe ji ba tax na suñu borom mus ta dañ di yebal ndaw loo xamante ni da koy waajal ba mu jekk mu ñëw nag ngir beesal si diina jooji yoon woowu saa bu ne suñu borom dana yebal ndaw loo xam ne day ñëw ngir beesal si yoon woowu nga xamante ni ci la yonente bi alayhi salaatu wasalaam jaaroon ak i saxaabam ak gaa yu baax yi ñëw seen gannaaw te loolu mooy dëppoog xadis bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax ne yàlla dana yebal ci xeetu muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam ci téeméeri at bopp téeméeri at yu ne yàlla dana yebal ndaw loo xam ne daf koy waajal ba mu jekk ngir mu ñëw di beesal si diina ji hadis boobu abu daawuda moo ko solo ci ci sunan yi kon loolu dafay tekki ne yoonu murit kon Serigne Touba indiwu fii lenn loo xamante ni lu bees la kon dafa ñëw ngir beesal si ni mu koy waxee bil mustafa nawaytu maa yujaddidu sunnatahul gharra wa inni ahmad man cheikh ahmad bamba lii sama mission mooy ñëw ngir beesal si diine muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ni dem na ba tolloon foo xamante ni mel na ni nit ñi réere nañ ko wala yokk nañ ci leneen loo xamante ni luy niru ay biddaa la mu ñëw ngir beesalaat déggi ni ndax diine bu ñuy wax beesal gi mooy beesal déggi ni ni ko nit ñi déggee bokkut ak nam demee woon nga ñëw beesal si kon Sëriñ Tuubaa nee na loolu moom mooy mission bi nga xamante ni moo ko taxaw na jóg jaddidu shariata al mutahara inchaa wal xaqiqata al munawara man Sëriñ Tuubaa lii li ma tax a jóg mooy ñëw beesal si sharia ak xaqiqa nazaafatuhu kulli min al lagu taharat wa sunnatahu inchaa rabbi ubayin kon moom yëngutoom ba mu jógee ba ni fi bàyyi ko ak ñi ko wuti ñëpp lépp mi ngi dellu ci beesal yoon wi nga xamante ni ci la muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam ak ay saxaabaam jaaroon loolu yi nag kon dañ ciy déggee ne kon ak murit képp ku ko bëgg a xam lan moo di ak taaliba dëgg-dëgg faww kon da ngay delluwaat ci mbindum ci sos ak murit ndax ni ñu ko junjowoon ci njaal benn ku ne mi ngi naan ak taaliba rek am solo te ku ci nekk firinu boppam la koy firee te da koy firee it na dëppoog rek bakkanam kon nañ bàyyi firim diw sàngam wala diw sàngam waaye li am solo buñ bëggee xam dëgg-dëgg kon dañuy delluwaat ci cosaan la te cosaan li mooy ni ko Cheikh Ahmadou Bamba mi nga xamante ni moo sos ak murit ni mu ko jàngalee kon képp koo xamante ni na sëriñ bi misaalee na melalee nag melaw yii kat ku ko mal mooy ab murit sadiq kon loola mooy li nga xamante ni mooy dëgg-dëgg ak taalibe kon ku bëgg a nekk dëgg-dëgg ak taalibe faw nga mel melokaan wi nga xamante ni moom la Sëriñ Tuuba wax ne nii la ab murit saadix di mel noonu mu ko junjee ci sifaatu saadixul murit yooyu ni ko Sëriñ Tuuba wooyee bi ci njëkk mooy ak cofeel topp ndigal bàyyi le linkaar ak bañ a am ak tànn noonu it la ko Cheikh Moussa Ka leerale ci wolof ne Cheikh Bamba ne jikkoy murit bu dëggal yenent jikko la murit beey dëggal soppab sëriñ def ndigalam bàyyi tereem te bàyyi gaaral bàyyi tànn ngir karim murit bu boole yile yaa dib saadiq ku ko mënul nag def maridun saariq kon mooy noonu ko Sëriñ Tuubaa waaye noonu la ko indee moom ci wolof liñ doon junñu ne yoonu murit mooy yoon wi yonent bi jaaran ak i saxaabaam moom it mu am yum ca indi mu ne jiwaaye wuutu joojawaay muy Sëriñ Tuubaa lay wax mu ne jiwaaye wuutu joojawaay yii gaaye wuutu yooye gaay mbii mi ra wuuta mooma waay mii mi rërëy ba weesu wax jiwaaye wuutu joojawaay yii gaaye wuutu yooye gaay mii mbira wuutu mooma waay mii mbira rëy ba weesu wax kon mel na ni yoon wa yonent bi jaaroon ca la sëriñ Tuubaa jaar saxaaba yi it murit yi toppoon sëriñ bi yoon wi jaar mooy yoon wi saxaaba yi jaaroon mbir mi sëriñ bi indi it mooy mbir mi yonent bi alayhi salaatu wasalaam indi woon moo tax mu ne murit day roy saxaaba ya ngeen ji saxaaba yi ngeen ji yonneen murit day roy saxaaba yi ngeen ji yonneen te fonk ndigal te gëm sëriñam ni dof ya abu bakrin uwaysun ibra faalun murit yaa ngoogu roy leen mbër yu mag ya kon day mel ni noonu rek mooy li nga xamante ni mooy li sëriñ bi indi tam dëppoog ni ko Cheikh Mahamadul Basir doon leerale kon mel na ni jokkoo bi ñu doon jokkoog suñ rajo bi nekk Dakar dafa mel ni dafa dagg bu fekkee ne del si ne ñoo ngi ñaan suñ mbokki africatel yi gannaaw buñ leen nuyoo ba noppi ñu ubbil ñu ligne bi ci 628 17 77 wala 628 05 54 kon balay booba damay jox Serigne Mamor su fekkee ne moom am na ay kàddu yoo xamante ni dina ko ci dolli gannaaw bu mu digloo waxtaan wi ba noppi kon dañ koy jox mu am lu mu ci dolli kon Serigne Mamor bisimilah.
jërëjëf Serigne Cheikhouna xanaa ma njëkk a sant bu baax a baax rek. sëñ Mahamadul Bachir ci ni nga xam ne ni la leerale benn bi nga xam ne moom lañ ko joxoon mu mel ni gëstu bi mat na sëkk ni mu ko leeralee mat na sëkk yooyu tam liñ ci tegaat ci ñàmbaas mooy tam lu am solo la kon dafay mel rek sëriñ Bachir lu mat a wax bàyyil benn roq ci tomb boobu loo xam ne mat naa leeral te leeru doon kon dafa mel ni lu ne luñ ci dolliwaat du ci am xanaa dañ ko ñaan rek suñu borom mu gën a leeral ak déggam gën a yaatal xam-xamam te ñaan suñu borom itam mu yàggal ko fi lool te wéral ko ba mu mën a wéyal ay liggéeyam ci gëstu xam-xam ak tasaare ko xanaa dafa mel ni liñ ci wax rek moo di ne kon ak taalibe nekkul loo xam ne nit ki dafay xool aw doxinam woo ko soow rek mu doxi noonu comme ni ni jamonoy doxee nga xam ne kenn ku nekk dafa mel da ngaa tànn sa yoonu bopp ci doxinu ak taalibe lool bu fekkee xool nañ ni ñuy doxee dana wóote lool ak jàngal yi nga xam ne moo feeñ léegi ci doxinu yoon murit ndax kenn ku nekk da ngaa sàkk sa yoonu bopp rek woo jaar di di ñu doxale sa maanaam dina dox dina jàppe ak murit dina doxe ak murit kon dafa mel ni kon ndekkete ak murit kon mooy dellu ci cosaani lislaam maanaam doon mu'min muslim muhsin